tudd Abdou Karim Fickou nekk président foyer des jeunes et de la culture bu Bambilor ñu ngi sant yàlla bu baax di julliwaat ci yonante bi di nuyuwaat encore une fois ñi fi ñëwoon ñëpp donc di wax ne réunion bi comme ni ngeen ko gisee dañu ubbi avec l'hymne national bi ñu ci jógee aussi ñu jox suñu papa di mu ñaan bi mu ñaanee aussi ñu jublu ci waxtaan wi le secrétaire général def benn euh, synthèse par rapport ak li ñu war a waxtaane ba pare aussi tëral chronogramme bi nu muy doxee ñun ñëpp ñu adopté ko donc bi ñu commencé man ma jël kàddu leeral def ay précisions par rapport ak li nga xamante ne moom moo ñu euh, dajale woon parce que comme dañ ne assemblée générale d' information donc il fallait ñu joxe information yi nga xamante ne moom lu foyer détenir par rapport ak li nga xamante ne moo am ci affaire bi donc ñun loolu la ñu leeral bi ñu leeralee ba pare ñu ubbi assemblée bi ñu commencé ñu ubbi une liste le secrétaire général ubbi une liste on avait quinze personnes ñu bindu et vraiment séance bi di dox ci jàmm ak salaam donc après la jékki-jékki gis euh, Ablaye Sylla fi mu toogoon mu jub ñëw ñëw ci man di wax ak man donc bi muy wax ak man boobu j'étais très concentré euh, ci li may def donc après mu jox ma téléphone ne mën a wax c'est le commandant mu jël téléphone bi jox ko sama vice président ne ko waxal parce que boobu dama bëggoon euh, lépp loo xamante dañ koy def rek mu nekk loo xamante lu leer la nga xamante ne ku fi jóge di nga am la bonne information

xaw ma moo woote xaw ma wootewul donc mu nekk loo xamante ne nii tey jaaxal nañu ñun trop parce que comment ça fait-il ñuy réunion jékki-jékki man la commandant am na sama numéro lu sous-préfet am na sama numéro. Mm-hmm. kon tey bu ñu jékki-jékki rek ab nit jóge fële Ablaye Sylla jóge fële indi téléphone di ma ko jox pour ma wuyu xaw ma nu mu demee mais ma ko du ma wuyu moo tax dama dama débarrassé wu ñëpp a ngi koy gis. assemblée bépp a ko gis bi ma joxee téléphone dama jël téléphone bi ma jox ko le vice président nekk am waxal. parce que dama doon bañ ay amalgame ëllëg ñu taxaw ne man maa def lii wala nanga ma nanga ma c'était la raison pour laquelle ma joxe loolu donc loolu moo waral tey bi ñu waxee téléphone après ñu ne commandant bi ne ne il faut ñu arrêter daje bi donc moom lañ moom lañ doon wax pour wax nit ñi leeral leen li xew le secrétaire général sax mu moo ko bëggoon a expliquer pour nit ñi comprendre donc nit ñi nag comprendre jàpp ne dañoo bëgg a tas réunion te ñun mais ñun wax woowuñu commandant waxuñoo commandant waxuñoo commandant waxuñoo sous donc moom moo jóg ñepp a ngi koy gis ci assemblée bi mu ngi sol palman bu bleu mo juk fi mu tok ñew ënd téléphone di ma ko jox mu jël ko jox ko le euh, premier vice président muy wax lamu wax nak néna commandant mo woté man woruma mais le problème en est que réunion bi mu ngi don dérouler dans de très bonnes conditions kon comment ça fait ñuy wo commandant pour lan ba paré nit ñi ñew ñuy waxtaan pour joxe information xana dañu japp ne ñun liñu liñu wax peut-être arrangé wul ñen ñi ndax ñun liñu wax dafa lèr est-ce que commandant bi yëgoon na réunion bi war am tey ci bam Bambilor yow en tant que président est-ce que yëgalu nga non non yëgaluma ko ko parce que tamit xam nga ci suñuy locaux lañ koy défé même bu féké né tay euh li nga xamante ni dañu tré yenn rassemblement yeeg yooyu président allégé na yu bari. allégé na yu bari li ñuy wax moy nañu respecté distanciation ak sol masque. Mhm. tay bo xolé ñi fi ñëw ñep la majeure partie ñep dañu sol seeni masque ñëw tok nit ñi wax ñu tàccu kon amuloon benn problème bu ci am le problème bi ci am mooy ñun dañoo toog. ñu indil ñu téléphone wax ne commandant la kan moo woo commandant c'est ça notre équation principale parce que ndaje bi mu ngi dox ci jàmm ak salaam mais bu ñu continuer woon noonu dara du fi xew mais le problème a nekk ki commandant moom Ablaye Sylla moo jóg indil ñu li nga xamante ne mooy téléphone man man wuyuwuma parce que dama doon bañ ku ma jam baaraam xam naa sama bopp baax kon loolu dañ koy ñaawlu dañ koy ñaawlu wax parce que nit boo dëkkee ci dëkk nekk ak say doom danga leen war di conseiller man nag xaw ma nag moo woote xaw ma wootewul mais daal moo indi téléphone moom ma indil téléphone bëgg mu wuyu ma jox ko le vice président ñu ne commandant bi la nee nañ arrêté ndaje mi mais nit ñi il n'essaie pas à comprendre sax mais dañu waroon déglu moom mu wax wala ñu bàyyi le secrétaire wax man wala man ma wax leeral li nga xam ne loolu lañ wax par téléphone man man yor nañ sama numéro kon tey bu fekkoon ne dañuy woo normalement man la ñuy woo en tant que président ne ma bi amoo autorisation c'est vrai annulé ko kon bu boba dina ñëwaat taxaw ne ndaje amuñu autorisation l'autorité a appelé il a dit que ne nañu annulé ndaje mais peut être liñ nga xamantene mom la joxé ci ay éclaircissement yu lèr genn keuyit yañ ma denk peut être mo lay mo leen moo leen jaaxal parce que bo xolé ndaje nu mu demee nga gis né ñu ay jeunes yu bari man man ko colomotif motif mo leen de parce que ils n'ont rien compris lañu ñu lan leen wax ñu jàppoon ko ak la xew c'est diamétralement opposé parce que dañu jàppoon né ñun dañu sacrifier wu li nga xamantene moy mooy alalu dëkk bi or que c'est pas ça moo tax bi ñu taxawee di wax on était à l'aise dañoo leeral nañ wane kayit yi mais xam nga loolu tey ay rumeur la lu ñu yu nit ñiy wax xam nga ba tey gisoo kayit boo xamante ne wan wan nañ la ko ne la yow lii mooy kayit bi mm-hmm. xam nga man j'ai été précis et concis mm-hmm. dama laa woon kayit mm-hmm. boo xamante ne dafa am signature ak cachet original yaa ngi dégg bu doon beneen délibération génn na mais ñun dinañ ko gis mais suñu délibération dégguñu ko. Mhm. Babacar il a confirmé parce que moo ma ko jox. Mhm. li mu ma jox lool laa ko won dama ko wane ñëpp di ko gis. Mhm. kon tey bu dee bu dee nee nañ dafa bon kañ xanaa ñi ko gis kañ dañoo bëgg a gis loolu rek. peut-être leneen moo leen xaw a yëkkati wala li ñu doon xaar lañ fekkul. dañoo foogoon ne le président bi fi nekk day nekk di sacrifier sa jeunesse non sa jeune d ferai jamais. du ma ko def mukk ci àdduna ñun suñu position initiale ba ñu amoon dès le ba tey moom lañ am. on n'est pas pour on n'est pas contre dañ ñoo dénk alalu dëkk bi ñun bu ñuy jël dañuy dajalé suñu ndaw wax ñu joxé seen xalaat ñu tënk ko dem yobul ko wa dëkk bi Wa dëkk bi nak luñu ñu ñun loolu lañuy ñuy loolu la ñuy du ñun ñoy décider on n'a pas à décider. waaw il faut mu leer Motax dama ko préciser préciser waat ko pour ñëpp xam limay wax. wax ñu fi pour décider mais dañu né dañ ñoo informer wax ñu ba ñu ñu waxee.